jërë ngeen jëf mbokki Wassare Lamb ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne fii taxaw ki nga mooy Gamou Gueye depuis combat am moom ak euh, Sokh ba léegi kenn gis ko kenn dégg ma bàyyi ko mu ñu wax daañu Gamou nuyu naa la. waaw ah, maa ngi lay fay di leen nuyu bu baax di nuyu ñëpp ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yoon bi sant suñu ñaari waajur di ñaanal sama nijaay Habib yàlla na ko yàlla yërëm xaare ka àjjana sunu garab bu woon di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xaare ka àjjana Habib waaw li mu liggéey si dëkk bi yàlla na ko yàlla fay su mu tëdd noonu waaw mais ñu gis la nga doon préparer combat boo xamante ne xawoon na duré sa diggante yow ak Sokh ngeen ñëw ba ci bés bi bëri ngeen yàlla may bi nekk combat boo xamante ne combat bu yomb la est-ce que noonu nga waajee woon non waajee ma woon noonu xam nga làmb la quoi dama daan ñëw bëree noonu daan mais xam ma ñëw daanu mais dama koy sant yàlla rek di ko kii champion la Sokh champion la te champion la doon bëreel xam nga sunu borom moo ñëwaat ndogalam rek ma di bu baax. te ñaan ñi ci bëri ñi ci bëri nee nañu Gamou Gueye du Gamou Gueye bi xamoon moo ñëw jour boobu parce que Gamou moo dóor moo daanu na la demee. waaw lambala moo la. di egg ko Gamou Gamou bàyyi li nga dañuy waxtaan dañuy waxtaan parce que daan nañu gis Gamou Gueye bu gën a coriace Gamou Gueye bu ñeme teg lu métti mais ñun kenn lambala rek lambala yoo gis nga ni mu naa xam naa ni mu demee mais ñi seetaan xamuñ naka la demee. waaw noonu la demee liñ gis noonu la demee. noonu la jekk ka noonu laa mën rek noonu laa bëree daan ma ñëw xam rek mooy loolu. mosoo daane la ñu wax daan fii wasaare la xam nga wasaare moom fii di leeree ah, mais damaa bëgg mu leer parce que ñoo gis que yow yaa dóor moom boo xoolee day reculer di la baare nga daanu naka la demee woon. dëgg ah, dama juum ah man dama juum mais nangu naa ko quoi dama juum man maa juum daanoo ba jug santi ne tey Sokh non du la raw ah. bi nga jugee santi ne daanu nga ah. bi nga jugee lan nga yëg bi nga jugee nag bi ma jógee fair play laa yëg ñëw na ko yàlla na victoire bi ji loolu laa yëg bi nga ñibbisee ba toog sa kër waaw tamit loolu mais boobaa ak léegi est-ce que promoteur yaa ngi lay woo di bëgg yi chaque jour ñu woo ma chaque jour ñu woo ma chaque jour promoteur woo ma ba tey si ngoon mais xam naa combat yi moo jotagul rek mais bu jotee bëre incha allah ñenn ñi waruma bëree ñoom waaw ñenn ñi war naa bëree ñoom mais ñenn ñi waruma bëree ñoom. fan sa fan si mën nañoo toog di xaar su combat léegi mu taxaw. waaw incha allah rabi gars yi na ngay kontaan tey man. kontaan naa ci waaw maa ngi gën a kontaan. de siyaar bu baax waaw.